xeex bu tar bu dox ci digganteel directeur l'hôpital bu Ourossogui ak ñenn liggéeykat yi ay élus locaux daal nañ fësal ne ñu ngi ànd ak kii di jiitu l'hôpital bi leen benn syndicat mënul nekk fi di di sacrifier population bi loolu dafa mëntul nekk en tout cas ñun de le collectif ñu ngi soutenir le directeur à 100 ñii di ay conseils municipaux ak i départementaux ñu ngi samp kuréel ngir daal di fësal ni bëgg nañ bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne moom la directeur lopitaal bi dal di sumb ñaas yi la ñu dénkoon seen i kàddu. ñun de vraiment dañuy gërëm directeur bi parce que pédiatre amuloon fi bu ñëw indi fi pédiatre indi deux chirurgiens pédiatre indi na fi trois ORL indi na fi quatre cardiologue indi na fi cinq réanimateurs indi na fi six pharmaciens biologistes indi na fi sept médecins urgentistes loolu yëpp du ko directeur bu nekk moo ko mën a def poste bu nekk nga doublé ko fu ñu doon monté guddi benn nit poste boo ñëw boo ñëw di nga fekk ñu monté guddi mais ñun population loolu lañ de Matam ñu ngi ñaawlu yenn fajkat yi nga xam ne dañuy jógee seen i bërëbu liggéeykaay ngir daal di ñëw doole la seen naatango sano fii ci l'hôpital Ourossogui. dañuy gis ay infirmiers yoo xam ne dañuy abandonné seen poste jógee Sinthiou Bamambé Teungueth ñëw ba fii te alors au même moment am na population ñoom ñu ngi leen di xaar état du Sénégal la ak ministre de la santé dañ koy woon jël responsabilité région de Matam dañoo fas yéene taxaw ngir daal xeex ñu bañ fee jëlee seen directeur bii di Ousmane Gueye. ay syndicaliste ñetti ni wala ñeenti ni lu leen intéressé mooy directeur bi na dem te loolu population mënutul nangu lu ñu daloon si Amadou Gueye Diouf duñ ko mës a nangu ñu xëy benn conseil des ministres ñun limogeé Amadou Gueye Diouf loolu mënutuñ ko nangu si directeur bi ñun les populations directeur bu ñuy liggéey lañ soxla te kii mu ngi nekk suñuy soxla